bismillahi dooratina bëgg way borom jamono ndeysaan sëriñ Saaliw xutbu na borom jamono wér bismillahi dooratina bëgg way borom jamono yaa fi wuutu ahmaduna Bamba yaay ki ama wono may nu Mbàkke yaay xawsuna yaa nu doy fi fi am ba am jeex na am la seexi saaliwuna ku amul kañaan war naa waroy ceew jiir jamono fekke mel ni wu wute xanaa ñàkk war sëdd tëlu na fekke jamonom tega moo sëriñ saal borom jamono sëñ Ousseynou Kane jërëjëf sëñ Ousseynou Kane jërëjëf sëñ Ousseynou Kane jërëjëf yow sa yëngu bi dëgg la sëriñ saali woo la safoo ngay bégle ci ji jamono bëgg buur de buur bëgg la gën a wër te moo gën a wër sëriñ saali woo bëgg sëñ Useynu mi mu man jamono bégle bernde ak daganal ay diggante yaa fi saxoo sant yàlla yaa jarale sang bi neex nga waajana wono sëñ Useynu maa la safoo ndax sa cant gi nga saxoo yaa saxoo li jar di saxoo moo tax nga yëngal jamono sëñ Useynu maa la safoo gi nga saxoo yaa saxoo jar di saxoo moo tax nga yëngal jamono sëñ Ousseynou maa la safoo ndax sa jëm dëgg yi nga yaa saxoo jar di saxoo moo tax nga yëngal jamono juli naa ci sayidina Mustafa borom Madina xat mu naa way mi di ñaan wer le wer yàgg jamono